mbooloo mi borom dimbali nañu ba Touba moom ku ne xam na ne kenn du laaj lu nit di lu bugaan di wut kon bu ñu ñëwee dañoo ñëw suñuy mbokk ñëw ci suñuy mbokki taalibe normal na ñu euh, dalal ñu e coalition bi yëpp dans leur majorité vraiment dans une écrasante majorité ñoom ñëpp ñu ngi fi euh, pour caravane bi ñuy def xam ne li ñu intéressé rek mooy Sénégal soqaliku Sénégal changé Touba am beneen xar kanam euh, région de Diourbel ci boppam am beneen xar kanam ñu def beneen élan euh, ci luy développer réew mi et ça je suis sûr c'est possible